jërë ngeen jëf mbokk internetu BP Actu yu ginnaaw bu ñu leen nuyoo rek di leen ziar tey nag vendredi 27 mai 2022 ñu ñëw ak yéen kaay yi ma si ànd ak soxna Aminata Ndiaye Amina maa ngi lay nuyu di la ziar ziar la bu wër Boucar Ndour di ziar képp ku ñu suivre saa su nekk sur la BP Actu te dalal leen jàmm ci seen xibaar revue de presse journal l'observateur lañ koy njëkkee euh, bi na ñëwaat na ci ak ay détails comme ni nga ko waxee lu toll ci fukki bébé ak benn ñoo ñàkk seen bakkan ci lakk gu metti bu am ci hôpital moom Abdou Abdou maam Abdou Aziz Dabakh bu euh, Tiwaawoon euh, bés boobee nag gis nañu Sénégal yëpp ñoo àndandoo ci naka ak tiis bi di ci soutenir seen waajur ba tax na suñu njiitum réew dafa daal di dagg voyage d'affaires bu mu amoon ñëw ci réewum Sénégal rien que ngir partager douleur boobee ci saa si nag la daal di décréter deuil national ñetti fan yoo xamante ni daal le drapeau dañ koy daal di wàcc drapeau sera mis en berne maanaam dañ koy wàcc ndax nakar bu amee noonu lañ koy euh, daal di defee ba tax na audition yu njëkk yi takk deri daal di nañ koy amal ci juróom benn nit yoo xamante ne ñoo ñooy liggéeyee euh, ci hôpital boobee la ca gën a fës nag ngi yëgal ne euh, juróom-ñaari inspecteur moom moo fa nekk ci juróom-ñaar yooyee ñaar dong moo ca merloo suñu jotum réew nag ba ci saa si ah, ci la daal di tekkee nombal tànku Abdoulaye Diouf Sarr daal di jël Marie Khemesse Falco mu ci réew mi. mu daal di jiite wàllum santé ci réew mi mu nekk nag lu doy doy waar waaye ba léegi rek ci biir journal bi nga xamante ni moo di journal observateur ñëw na ba léegi tamit ci négociation yi nga xamante ni rek moo mooy dox si diggante gouvernement bi ak ñi nga xamante ni rek moo di enseignant yi. comme ni nga ko waxee nee nañu yaakaar moo tasoon ndax ba ñu trouver accord bu commencé waat jàngal élèves ba weer ba deewee ba ñu war a dem jëli li nga xamante ni moom moo di seen salaire ba ñu dikkee la ñu saytu ni daal seen payoor fa mu nekkoon jógewu fa maanaam daal yokkuloon lu toll tal fatal ay ñi te la ñu jàppee ni daal nguur gi da doon foo ak ñoom daal ba nax leen ba ñu reprendre études yi jamono ji daal dinañuy recommencer waat seen i grève ba tax na daal ñoo ngi waxtaanaat nguur gi xool ba naka la ñuy def ba enseignants yi delluwaat ci salle de ba naka la ñuy def ba salle ba ba ba enseignant yi delluwaat si salle de classe si waaye lii tamit beneen problème la rek mooy maanaam tey ñi war a jóge fii war a dem sa diwaanu Màkka incha allahu rabi dafa mel ni nag tey am na ay nouvelles yoo xamante ni daal ay nouvelles ay matukaay yoo xamante ni naa ne nar ci diwaanu Màkka quota boobee koo diviser ci euh, li nga xamante ni moom moo di centre privé yu doon amal wàllum dem bekk dikk bi ci aj Màkka bi jamono ji nag nee nañ am na yeneen chose yoo xamante ni moom moo ñëwaat bu moytuwul rek nar a compliqué waat aj 2022 bi lépp nag euh, bokk na ci euh, ñi nga xamante ni ñoo taxaw bëgg a dem nombre boobee moo ëpp fu nombre bi nga xamante ni moom dañ leen yàqale nombre bi nga xamante moom lañ yëkkale waaye lii tamit beneen daraam la rek fële ca avenue Roume mu mel nag tey kii tamit benn euh, waay la boo xamante ni tey soxna Aminata dafa faat bakkanam doon liggéey nag fële ca SGBS waaw ak la sax mi ngi wuyoo ci tur Rokhaya Daba Ndiaye ñeneen ñi naan ko Rokhaya Daba Coulibaly euh, borom këram euh, nekk benn agent wu douane ginnaaw nag ba mu dikkee ci jeudi bi donte férié la sax waaye dañoo convoqué woon ñeent ci agent yoo xamante ni dañoo waroon ñëw liggéey ci benn dossier dossier boo xamante ni urgence la àndaloon ba tax na daal moom Rokhaya Daba Daba Ndiaye naka la yegg si rek yëkkati téléphone di wuyu ba mu paree ci appel boobu dafa doon def va et ba ni mu yéegee ci kaw daal di tëb daanu laataa muy tëb nag collègue mi topp toppoon nañ ko ngir gëm ka jëm koo dissuader ci décision bi mu jëloon waaye dafa tari ay saar rek daal di tëb borom këram nag mi dafa amee woon dépression dépression bi moom moo ko sonaloon ay weeri weer ba tax sax gëjoon na ñëw ci banque bi liggéey si mi ngi judd ci atum 1979 wàcc fi ñetti bant ci ginnaawam. mu nekk lu doy doy waar soxna Amina la daal di def daal di jàll si journal Libération moom tamit ba léegi rek mu ngi wax ci euh, euh, fukk ak fukk ak benn ndaw yi nga xamante ni de soxna Amina Ndiaye ñoo ñàkk seen bakkan fële sa diwaanu Tiwaawoon. fukk ak benn ndaw yi ñàkk seen bakkan moom la ñëpp di waxtaanee jamono ji ñëpp ci àndandoo yërëm loolu seen way jur yi ndax ëmb juróom benn juróom ñeenti weer dafa metti rawatina nga accoucher am yaakaar lool ni ci sa doom ji nii dina màgg ëllëg ba jariñ la yaakaar daal di ñëw tas fukk ak benn daal di ciy ñàkk seen bakkan ba tax na Mamadou Mbaye Mamadou du Mbaye nag bokk na ci ñi nga xamante ni ay secouriste la ñu may yëg la ni ba mu dikkee ci hôpital ba lépp ñuuloon kukku ci service néonatal bi bébé yi nekkoon d'ailleurs sax jëmoon naa laam benn bébé mais da laa lekk rek loxo ba daal di wadd mu gis ni daal ñoom ñëpp seen euh, yaram yi daal di nay euh, xëmba jeex tàkk. mu nekk tamit lu doy doy waar moo tax rek yaakaar na ne njiitum réew bi décrété rek ñetti fanu day national yoo xamante ni tey maanaam tey dañuy wàccee drapeau bi mu nekk lu doy waar waaye ba léegi rek fëre sa diwaanu Kubanaaw soxna Amina Ndiaye dafa mel ne nag Fatou Badji nee nañ moo faat magam. moo faat euh, bakkanu magam bu góor ñoom ñaar ñoo bokk benn yaay benn papa ñaari mag rakk lañu ku jigéen ki mi ngi toll ci 19 ans euh, ku góor ki mi ngi toll ci 22 ans ku jigéen ki dafa bàyyi ay études waaye nag day faral di génn gudd lu bari nekk mbir bi nga xamante ni bu fekkee mag bu góor nga bu fiir rek doo ko mën a nangu saa su nekk mu ko doon tere rakkam joojee ba tax na bu tegee tànkam ci biti rek mu jéem a am ay histoire yu mu koy indil ba tax na Fatou Badji dafa dem baxal ndox ba mu bax rek mu fekk magam bu góor bi tëdd mu sotti ko ko ba ci la jaare ñàkk bakkanam mu nekk lu doy doy waar soxna Amina Ndiaye waaye ba léegi rek noonu la ñuy di def daal di jàll si biir journal bi nga xamante ni tey yaakaar naa ne waaye ba léegi rek si biir journal libération sax dafa mel ni Xaasim Ba bi nga xamante ni tey yaakaar naa ne moom lañ jàpp ne moo faatoon ndaw soosu noonu dafa mel ni même fi ko tëj am na yeneen aveu tamit yu mu defaat waaw dañ ko doon euh, préparer déféré au parquet foofee nag la Xaasim Ba daal di amalaat yeneen i révélation ci biir révélation yi mi ngi baalu àq bu baax a baax euh, famille Kiné Gueye di jégalu baax a baax Kiné Gueye ca fu mu tëdd ndax nee na loolu dong moo mën a dalal xelam ndax ndox tuuru na ba noppi mënatu koo tonniwaat moom Xaasim Ba mi ngi jégalu famille bu baax a baax waaye tamit nag moom leer na ko ni ëllëg ci biir du gisaan mbukk bébém bii nii mi ngi wax juge bi tamit bu mu amal benn clémence ci li nga xamante ni moom moo di jugement bu ko war a tëj à ko tëj à ko waree tëj cent ans na ko tëj cent ans ñaanul clémence euh, ñaanul lenn loo xamante ni daal yërmande la ndax nee na moom fa mu tëdd dafa bëgg am conscience tranquille que li mu def euh, kii nii di Kiné Gueye mu ngi koy euh, fayeeku nank par nank mu ngi koy fayeeku nank par mu nekk lu doy doy waar kii nag moo war a fayeeku di Sadio Mané soxna Imana Ndiaye ci biir journal record dafa mel ni nag tey fi mu toll nii moom nee na pour moom nee na c'est un match comme les autres dafa mel ni nag dañu am nag match boo xamante ni tey match bu rëy rëy rëy la dafa mel ni nag Liverpool Real loolu du yomb noonu la demee diggante Liverpool ak Real ñoom ñaar ñoo war a sekk li nga xamante moom moo di eh, final bi Sadio Mané nag jamono ji ñëpp ak naan ko mu préparé waat defarwaat bu baax baax ndax eh, mën nañu digganteem ak Benzema la te ñoom ñaar ñëpp dañoo jege li nga xamante ni moo di Ballon d'Or bi donc Sadio Mané gagné ko mooy li gën ci moom eh, ci carrière am rawatina mu dem laali Ballon d'Or bi ba tax na daal nee na moom match boobee jëlu ko def ko pression doo ko jàppee yeneen match yi nga xamante ni da ko doon jouer contre yeneen équipe yi Real nag fait partie des meilleures équipes du monde des coupe du monde waaye nag ñoom ñoo euh, teg tànk jamono ji ci réew mi ndax ñoom ñoo leen ëpp qualité. ñoom ñoo leen ëpp qualité tax na rek ki nga xamante ni moo di Edouard Mendy moom fi mu toll nii ay ñaan la jël rek jëmale euh, woon keroog daal di jël ndam li euh, ci seeni loxo waaye teewul ne Edouard moom mi ngi wax ci côté sénégalais bi nga xamante ni moom la bokk ak kii nii di Sadio Mané nee na tey jii bu sañoon mi ngi ñaan yàlla bu baax a baax que Sadio Mané li nga xamante ni moom moo di Ligue des champions bi moom moo di Ligue des Champions waaye ba léegi rek ci biir journal record Bamba Dieng rek la ñu woon rek dafa mel ni moom dafa mel ni mu ngi leen di sonal lool lool parce dafa mel ni dafa am ay équipe wala ay club yu ko soxla. waaw dafa gën a marqué empreinte moom Bamba Dieng ba tax na jamono ji daal mbirum mercato bi ñëpp a ngi ko ci xalaat bu baax a baax ni am na valeur bu rëy boo xamante ne war nañ ko ci mën a marchander ba tax na daal ba xam moom day desandi ci olympique bu Marseille wala day sol dàllam rek découvrir benn club loolu mooy question bi. dafa mel ak taskatu xibaar yi waxtaanee li ak Rwanda loolee Aliou Cissé da daal di annulé annulé li waral mu annulé ko nag ba suñu joon yàlla tey ji xamuñu lu mu doon waaye incha allah dina ci waxtaan ak presse. presse noonu la ñuy def daal jàdd kon nag fekk fa journal bu sunu làmb muy xëy nag di fësal si xëtam bu njëkk kii di Ama Balde mu mel ne nag tey nee na Balde une équation à trois inconnues mu mel ne nag diggante Lac de Tapha ak Gris Bordeaux la dafa am ñett ñoo xamante ni tey jii war na mën a tasante ak ñoom comme adversaire digganteem ak lag de Guiers moom ñëpp gis nañu ni mu demee que ñoom ñaar ñoo ngi laajante diggante Ama Baldé Tapha Tine digganteem ak Gris Bordeaux loolu waral daal ñu daal ni jamono ji dafa euh, toog ci benn dilem boo xamante ni daal euh, xamul ñan la war a choisir ci ñetti ñooñu. xamul ñan la war a choisir si ñetti ñooñu noonu ñaar ñi nag choisir choisirante nañ ba pare rek muy diggante Thiatou Daouda Fall ak Youssou Ndour bu écurie Lébigui nag mu mel nag Pape Mbaye nag moo si nekk di wax. nee na nag caatu mooy wax dafa war a racheté ci combat boobee maanaam daal dafa war a dabu ci digganteem ak ki nga xamante yi fa moo di soq si combat bi mu jëm digganteem ak Franc le 19 comme ni ko mbëri di bëggee saa su nekk képp koo xamante ni dafa ayee ci koñ ñoom ñëpp ñu booloondoo dimbali la ndax des fois mbër dina dem ba toll fa nga xamante ni avance am wala cachet am sax du matati ngir mu daal di continuer combat am ba tax na 200 pour cent Pikine la waxtaane jamono ji ñoo boole seen pepp ak seen peppet ngir daal di jàppale Sokh ngir daal di jàppale Sokh ñaar ñi nag ñoo war a laal muy fils de Max ak Batista numéro 2 moo nekk na boo xamante tey Mbaye ñi moo si yëkkati ay kàddam nekk coach écurie Bawol la mu ca wax nag du lenn lu dul fils de fils de Max ak Batista dina nekk combat boo xamante ni dina tar lool dina metti lool waaye dina nekk combat yi nga xamante ni mooy gën a neex ci saison bi la. 15 ans de carrière moom lay féete moom Fallou Ndiaye xamante ni seen combat du yomb muy diggante Tonnerre 2 ak Guiro Seras. diggante Tonnerre 2 ak Guiro Seras ngir féete anniversaire am a boo xamante ni tamit combat lay doon ci biir combat yi te ñëpp a ngi koy xaarandi. dafa mel ni leeral yi loolu moo si gënoon a fas soxna Aminata waaw bu ko tey li la leen na ci seen xibaar revue de presse jaajëfal leen jox leen dig daje ba beneen yoon.